dañoo sàkk jaru génn ci loolu di jaamu yàlla bu mu fekk mujtama bi maanaam société bi aajo wala ngay suñ war a jàngale wala docteur bu faj wala ngay koo xam ne dañuy jiite li ko amul fa kenn moo koy def bu fekkente ne ñoom ñëpp am na ñu la ko mën a fegal te jaru ngay bari ci diine ak lay sa dara nga dana la jëriñ maanaam médication maanaam dana la jëriñ tëkkattur ak tëkkattur bu boobaa lay soog a dagal yow nga dem ak ci la nit ñi fekk ak ñu nga mën a ñu nga dundee yéene nit ñi nga dem nga ci leen jàngale ko leen dem ne da ngay jaamu ci yàlla ci àll bi xanaa gis nga imam Malik la nga xam ne moom la ko suuf yi ba bindoon ak la mu tontu wax a wax ba jeexal loolu ko daal ni ko qad tayammamtu bi saidi zamanan wa ana al ana qad lafirtu bi ma'i man sara mutlaqal jufun mutlaqal jufun wa adha fatihan laa yarudduha lil amaa'i man de dama daan tiim aw moo ndox xaw moo ndox mais tiim di julli léegi nag am naa ndox mais koo xam ne fii dañoo kole woon nabi bëtam muy def muy def ci lëndëm bi bu mu ubbee bëtam ndax dana delluwaat ci di kolewaat ay nabi bëtam ba doo ko gis maanaam wan kon wan na ko ne gis nga lu ëpp jàngale muy ab yoon jàngale yeneen mën nañ ko faa wuutu waaye suñu jëm kanam mu ko faa wuutu suñu boppam man ñu daal ñu tudd sëñ Touba radiyallahu taala anhu bu dul jàngale xam ne daf daan jàngale alquran di toppal ay dongoy alquran ñu leen toppal ñuy deqi alquran bi nga xamee ne gis na loo xam ne xam na ne moo gën ci ñenn jàng te mën ñu mën ko dal di waxee noonu buñ topp ñaar bi ne lii dañu màgg a màgg la mooy de am na lu ko gën a màgg mais quoi jàng alxuraan am na lu mu gën a màgg loolu woon mu nga xam ne jaar jaar yoon woo xam ne biñu biñu dogal yi xalima da koy bind ci ci dañuy def sa àllu ba nga di ko dégg li ñu ko laaj waaw loolu naka nit bi amee mu ne xanaa tur bi ñëw tur bi ak tarqiya bi nga xam ne nag am na ndigal dañ koo digal ba mën a sañ koo bàyyi rabbi asxaabaka rubba asxaabaka rabbi asxaabaka bi jumati wala rabbi bi jërti foofu la sàkkee nag ñeneen ñuy jàngale moom ñu taxaw ci jàngale al himmat li ahli tasawuf tuddee al himmat al himmat daanaka misaal naa ko léegi mooy yar nit ñi ci sa ittey bopp ci xam gi nga xam lu ma ko waxee woon xaalu nit ñi xam na nga leen di xettalee ak na nga leen di wommate ba yóbbu leen ci yàlla ñii nga yóbbu leen ci àjjana ñu amul mucc xam ngeen ne kon noonu xasaal yi defoon radiyallahu anhu Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu def na ko waaye kenn ku ci nekk ndax ñoom ñoo nit ku ci ne mu gedd bi kenn ku ci nekk fekk nañ di bind loo xam ne doy na nit ñi sëkk jàngal ñoo xam ne mën nañoo toog di jàngal nit ñi itam waxtu ñooñu waxtu ñu ko jógee daañu jàngal ñeneen ñoo xam ne kenn xamul lu ñu toll ba saa di taxaw ay jàngale Sëñ Tuba bàyyi na ci lim bind loo xam ne day na bu kàllaf bu nekk ci xam ko diine lépp lu la ci war ni mu waxee woon ne war na ko def na ba teg ci yeneen loolu ulamaay wax na ne ba léegi wax foofu la dem ci àdduna kër gi boo dem fekk ci Ihya Ulumuddin ak Gasaali kon jëf bi ñu nangu mooy jëf yooyu lépp ñooñu nga xam ne dañoo dikk def di tëj di beesal lu ñuy beesal dañu ne diine ji la ñuy beesal waaye dañuy beesal diine ji ci xol nit ñi dañu fekk nit ñi sàggane diine ëmpale diine réere diine cellay diine dëgg dëgg dëgg ak fañ ko waroon a fekk nañ ko war a jàppee ñu dem ba gisee ko neneen jàppee ko neneen ba ñëpp fëkk leen ñu dellu ci lépp bëgg a delloo ci ñu ca loola la xamal leen loo tax secret diine dëgg ñu am ko tëj ji boobu moom la ñuy ñëw ngir def ko mu jot boobu suñu borom daf koy tànn ci biir tànn xam yi di gërëm na Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu nee na sëñ bi xaw la waaye nee na Ahmad bin Mubarak taalibeem ci gént loolu la daal nee ngir ngir wax wax su ma ko gisee moom rek xeeb sama bopp kon ba xam lu tax muy xeeb boppam nga xam nga mu jot bu foora foora foora lu doy doy waar la boo nekkee nag xub bi xaw nekk mu jënd boole ci su jëf da nga gis dana duñ ko tegee ci balaa boobu xëy na dana doy boole am. donc loolu dafa nekk قريب عن الخلال في كل بلدة إذا أذن المطلوب قل المساعد gaa yi yàlla tànn suñu toll ñu nekk li ñu doon donte ñu ngi ci biir nit ñi ñëpp réew ñu dem rek duñ am xarit duñ am àndandoo duñ am mbokk duñ am doomu ndey bu gën a sëñ ci yàlla dafa mos a doole duñ gaawaan duñ rëccaati duñ ma sàmm mais xeex na duñ leen ma mbàkk ñoom ñu dem ak ba mbàkk yëpp daje kenn ku ci ne mu ne la xanaa bëgg nga ma de ne ko waaw waaw naan sax ah dama ne man de bëgg ma leen yàlla dong laa bëgg ولو فريد أن الخلان في كل بلدة إذا عزم المطلوب قل المساعد رغم ذلك كلما عزم المطلوب وشرف صعد مثلته وطال طريقه وكثرت عقباته بس ما خمرت من زينة تأم سلف تباخ تأم جري بس جدنا جفة يوم ودنا جدي شوفوا يدنا بري يوم ودنا نجد يوم لتنكب أجارا تبقى ndey tàggoog bàyyi tàggoog bokk tàggoog rek tàggoog nekk amul xarit amul dara lépp mu jaay ko jënde ko yàlla ngeen war a nekk bu jedd bi nga xam ne mooy beesal ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf jamono yi mu matal sart yëpp sart yi sartoon ci mucc ayib maanaam mu jedd ndax mu jedd day nekk mucc ayib benn nekk mucc ayib mutlaq wala mucc ayib muqallad xam ngeen ne al mujtahidu mutlaq رميت اليوم امام مالك الشافعي ابو حنيفه احمد حنبل يقول لك الاوزاعي فك بن سعد بوبو ابنيه اسمه احمد بن جرير الطبري ومجتهد المجتهد مطلق ابن مجتهد مقيد مجتهد مقيد لم يدرك شنو بان مجتهد مطلق waaye mën na ñoo wuuteeg boobu mën na ñoo am seen yeneen i xalaat waaye xam ngeen ne wut bu ñëpp koy teg ndax aarif billahi moom amul ngéer ya door na xaq xawf naa daara moom day wër du sañ a génn ñëpp ñu ngir ñëpp waaye bu nekkee ci ngir mi ba gis ne ngir ñëpp kat masala ñu buñ ci wax masala moo ko ëpp doole moo ko gën a jege ngërëmal yàlla moo doon jëfe loola ba noppi te nekk nag ci ngir ñi loolu ñëpp tamit lay doon boo xam ne day wuuteeg ñëpp tamit mutlaq wuuteeg ñëpp tamit mu xayyat boo xam ne dafay nekk ñëpp tamit mutlaq dama Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu bi nga xamee ne dugg na ci julli yu bari daf ko daan def kat bi bi nga xamee ne taalib yi bëgg nañ ko ko fekk mu ne leen del leen ci Malik Malik sharia bu sell la amee ndax ngeen tënku ci wér bu fekkee da nga nekk wut tënk nekk xëgg nekk mu bedd dégg naa ne dañu koy bàngoo boo ca boolee leneen nag beneen martaba boo xam ne keneen mu ci ko woote xam ñu keneen ku ko doon te xam ñu keneen dana ko doon wala déet muy leneen loolu lan daanu ci dem mooy xaadimu rasulillah te loolu mu woote xattu mais ñu bari ñoo xam ne wax nañu nekk xëy bu xaw ndax du manqué ci jamono am na ay ñu jëdd waaye xaadimu rasul benn lañ ko dégg duñ benn lañ ko gisagul te garab yi yëpp daf ko ràng boole bi loolu loolu nga ma xasaat wax ne dama daan tuuti léegi ma am ndox day day suway ñu ibnu arab ibnu arab yi wax tawaba bi ma il xay bi in kunta la sirri wa illa tayamman bi saidi wa bi saxri وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة العصر صلاة الفجر في أول العصر مثال الناس كتوبة وجد سخل وجد ملك دلوات بنين دال دي جسنا dafa jiw ñu ne ma sa daan jiwoon dañ naan dama daan jiw léegi dama am ndox di jàpp yéen ne yéen ci sa yoonu tasdiq la dëgg xam nga mbir ak dëggal mooy yoonu mucc xam ngeen ramu sax ku ko gëmul doo si am cër yéeme saam kenn du la ramu ku gëmul ramu yéeme saam kenn du la ramu ku gëmul ramu yonente bi salaa sallam yonente bi du la ramu yéeme saam ku gëmul ramu sëriñ sàng yéeme saam du la ramu mukk li nga xam ne nag moom la inqita maanaam wacc bu ñu fi gën ñëpp di jaamu yàlla di gën lu muy jëriñ al fikra ko ci jiitu parce que mooy damay wax méditation xamoon naa waxoon naa sànq ne alquran moo ko jàngale moo ñu jàngale lu muy defee fikra fikra dañuy wax benn saa nga def ko ko moo ëpp doole jaamu at ñenn ñi moo ëpp doole jaamu jamono ñaar yëpp ngi ci misaali sëñ bi wax na ko xam ngeen ne al fikratu mooy wam nag nit ba ci xadrat suñu borom tabaraka wa taala fikar nag mooy lamp bi nga xam ne mooy leeral yoon wi waaw jàng mbokk mi kon nag ñu dal di gën a gàttal yaakaar nañu ay laaj bi ci xaj di gën a di gën a woon ci gën a di gën a kii waaye xam nga jamono moom intérieur maanaam jamono moom lu yéexe la pour mënu koo jëriñ lu ci jamono yi am mën koo wees bu dee lu appal ci dund bu dee lu appal ci leneen lu mu mën a doon rek da am wees kon jamono yi war a tàggoo jot na dafa mel ne laaj ko bi sa xaj war a kaa ñu gën a continuer kon loolu ñu leen di gërëm di leen sant ñu ñaanante rek waaw ndax laaj yi ñu fi yaakaar nañ ko xaj waaw waaw li ci def moom suñ tubaab rek la moo fa jagoo amul leneen bu ci wax laaj bi yaakaar ma ne dana ko mën a faj kon ndax dafa am xëy na leneen lu war a topp lu bàyyi loola xel tàggu leen ñu ñaanal ko laaj yi fekkee am na ci benn bu ñu mën a topp bu seetlu bu ci gën a itteel mooy lay kon xaw na guddi ci doon laaj lu baax ci Sénégal su nit faatoo ñu di ko jàngal ay kaamil di ko jàngal ay Quran wala am ku ne ko loolu bidaa la ci Sénégal rek lañ koy defee ci Sénégal rek lañ koy def moom amul solo ndax dëgg moom dëkkul Misra dëkkul Makka dëkkul Amérique dëkkul Sénégal dëgg moom dëgg la suñu toll rek ci dalee yaa nekk ci dëgg su ko ne bidaa la bidaa lu ma xam la daa ngi di waxtaan ci gàmmu maa ngi tàmbaloon sa waxtaan ne gàmmu li nga xam ne dem nañu ba ne bidaa la bu rafet yow bii yëpp ne bu rafet la te daaw ñu ko def lu jiitu almalik al muzaffar ñu tuddee ko bidaa ne nag bidaa bu rafet la waaw ma ne man bidaa la muy rafete te yonente bi salaa sallam ne kullu bidaatin dalaalatin wa kullu dalaalatin fi naar la mu nekk bidaa yonente bi salaa sallam ne ummati laa tastami ala dalaalatin te daanaka xeetam wi nee na bi ñu daje ci biir yëpp daanaka daje nañ ci gàmm bidaa ñu ñu ñu koy tuddee maanaam gàmm ñu ñu koy tuddee moom wàcce kaamil lañ ko fi jógee yëpp yu bari ijtihaad lañ koy tuddee ijtihaad mooy lan ijtihaad ci biir cadre l'islam bu la neexee nga de bés sàngam ak bés sàngam ak bés sàngam gis naa ko yéene woor da nga fekk loo xam ne jëf li ñuy jëf ci l'islam la kenn mu nga dem teewul ak daganam ci waxtu ne yow nga tànn waxtu woo ko bëgg a defee ngir nit ki yàlla da nga def ijtihaad maanaam jëfuñu ci moo xam kii jàng kaamil di ko jàngal ku fi jógee moo xam kii gàmm jëful loo xam ne kenn mësu koo jëf ci lislaam jëful loo xam ne lislaam daf koo tere jëful loo xam ne mënul sos lu bees la sàkk bu ko sàkkal jamono bu la neexeen ngay woor samedi bi nag bu la neexeen ngay woor arafat bi nag bu la neexeen ngay wàcc alquran altine bi nekk ak dimanche bi nekk wala alarba bi nekk ijtihaad mooy yow ci sa bopp nga tànn ak jaamu yàlla boo xam ne kenn garantiwul ci ne lu ñu santaane la lu dagan la lu baax la yow nga sax ci sa bopp di ko def loolu mooy ijtihaad jàng kaamil képp koo xam ne ci xam nga te am settantal xam nga ne jàng alquran tuyaaba ju dul jeex la jàng alquran innamal a'maalu binniyaati yaa ngi koy jàng ngir jaamu yàlla boo amee pas-pasu jàng alquran ba noppi ki nga xam ne dafa ne nag moom ci Sénégal la ko joxe xanaa jàngal xat mu biir بين اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا الى روح سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاه والى روح ابائنا واصدقائنا وامهاتنا والى ارواح مشايخنا عما الى خاصه والى ارواح جميع المؤمنين والمسلمين عما برحمتك يا ارحم الراحمين انا جنب لول xatma bi nga xam ne da ngay jàng alxuraan ba noppi ne suñu borom yoonu lii ma jàng ak leeru lii ma def mu wàcc alxuraan yàlla na ko defal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu fu mu nekk bi daa damay laaj lu mu tuddee bi daa lu mu tuddee bi daa gannaaw moom ulama ul aarifoon yi yépp maa ko woon ci ne ñaan kañ ko ñaanal dana ko jot moo tax ñu julee julee ñëw ñaan rek la dañ koy ñaanal bu ñu jot ci ñaan gi mu jot ñaan nit jëfam da nga ko mën a jëriñ waaye jëfi keneen mënu koo jëriñ njuumte lu réere la ndax kon ki lay julee wala ki ngay ñaanal kon dàq nañu julee dàq ñaanal dàq yooyu yëpp kon ñaan dootu am ki ngay ñaanal te ñaan gi sa jëf la te yow rek la sa jëf mën a jëriñ jëf ji mënu la jëriñ ki ngay ñaanal kon bu ñu lay jëfi nit mënu la jëriñ lu dul boppam njuumte la loolu indi yeneen lay lay yu gën a dëngoo ci sax far li li ñu wax ak li ñu jëf bi nga xam ne ni ñii indi nañu ci suratul kahfi qissa sayyidina Xadir ak Muusa alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne wa ammal jidaar fa kaana li ghulaamayni yatiimayni fil madiinati wa kaana tahtahu kunzuhuma wa kaana abuhumaa saalihan fa arada rabbuka an yubluga ashuddahumaa wa yastakhrijaa kanzahuma rahmatan min rabbika yonent Yàlla Muusa yëkkati tappaat bi bi nga xamee ne dem na ba kii kii koy kati Xadir bi ko Moussa dee laaj ñetti jëf yi mu jëf mu ne ko ñii seen baay dafa baaxoon te dafa leen wàccaloon ndam bi ci suufu tappaat bi ma bañ ndam bi di réer ndax seen baay dafa baaxoon. bu ñu ne waaw kon ñii seen baay rek baax baax boobu jëriñ leen ñu lay lay mu dënd ne ba tey seen jëfe leen jëfi baay bi ndax te nit ñoom jëfi baay bi lañu ndax doom jëfi baay bee mën leen xanaa kon yonent yi seen bàyyi leen gën jëf seen bàyyi mu leen jur te ñuy te nit nit du jëfi bàyyam te yonent yi jur ñoo xam ne duñu yonent xanaa kon yonent yi seen bàyyi leen gën jëf bàyyi bi mën na bañ a nekk jullit jur ci nekk yonent kon yonent boobu doon jëfam ci jëf yonent kay moo gën ci jëf lu ak yéefar te yéefar bi jullit yonent bi mën na jëf yéefar kon bàyyam bu yéefar ba nekk gën ko jëf loolu xel mën na koo nangu benn mbir mu ne doom jëfi bàyyi bee doom jëfi yàlla ñaareel bi nag ñu ne nit jëfam dong ko mën a jëriñ ndax kon ñaan toxu kon it ramu toxu te ramu alquran saxal na ko xadis saxal ko ulama wu ñëpp itam saxal ko te alquran dafa ne alladina amanu wa tabaatuhum durriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim durriyatihim wa maa alatnaa min amalihim min shay'in alquran boo ko jàngee yool bi ku la neex mën nga mën ngaa ñaan suñu borom ñu defal ko ko ñu lay ñaane ay lixlaas di ko ñaanal ay réew li mu waxee ne alquran jàngal ko ñëw fi nekk la déedéet duum na xam nga yooyu kenn binduñu ko fii ci Sénégal ku ko bind dëkkul Sénégal man dem naa Tunisie dem naa Égypte daañu def ndax ñoom bu ñu fuulee ñëw taxaw bala ñuy dëbbi jàng suuratu Yaasin vraiment yi ñu gën a ci ñu wax ne yolamal nañu jàng suuratu Yaasin ci fi nga xam ne nit kaa nga xar-xar la roo daa ngi bëgg a rot waaye ulama yi gën a gën a taamu mooy di fa tudd yàlla laa ilaha illa allah te bañ ko wax ne ko waxal laa ilaha lu dul naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ndax doomu aadama bi fi mu nekk ci sukuraat ay mbir dana wóññiku ci jëfam ak ci yëgam mbir yoo xam ne yàlla rek ko xam te doo doog waar la iblis ci jamono jooju lay ngem ngem ba la gën a dëgër takku fas ko yéene xañ jaamu gin jaamu woon fas ko yéene tàmbal ci yoonu safara bu dikkee daf naan ko neel deenaa ci diine nasaraan ak biir yow jëj yëboon ndax moo gën ci diine yi bu ko defee bu fekkee waa ji mi ngi koy tontu naan ko déedéet waxuma ko fekk kii naan ko waxal laa ilaha illallah ñun ñii defee ne kon kii naan ko waxal laa ilaha illallah la naan lay tontu naan ko waxuma ko duma ko wax bu ko defee ñun ñaaw njort ci moom te allahu tabaraka wa taala inda zununi abidi yi ma nga fi ko jaam bi toll rek la ko toll kon doomu aadama yi suñu borom daf leen a indi fii ci àdduna ñu am ay mbokk am am ay xarit bokk quartier bokk dëkk kenn ku ci nekk am ci sa morom ak kenn ku ci ne mën ngaa jëriñ sa morom ndax doomu aadama bi bu juddoo ay doomu aadama ñoo koy far ñoo koy sang ñoo dëgg yittam ñoo koy sàkkal tur ñoo koy yar ñoo koy nampal ñoo koy jàngal ñoo koy sang bu fi jógee ñoo koy suuy ñoo koy jullee kon nit mënul jëriñ morom wala jëfam moom danga la mën a jëriñ wax ji dënga dënga dënga la nit dana jëf jenn jëf mu jëriñ ña ko fekke woon ñëpp ñëpp ak ña ko toogoon lu tax ñu ne waa indi dikri saalihiina tamit ñu rahmatu waxtu ñuy waxtaane gaañu baax ñu yërmande yàlla day wàcc te kon ña fa toogoon ñëpp ci ki ko doon waxtaane bu leen ko ëpp tuyaale bu ñu ko dégloo yonente bi salaa sallam ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhiban wala takun la xaamu fa tahlika nekkal di aji xam wala nga aji xam wala ngay koo xam ne yaa ngi déglu ñuy xam tey wax wala nga sopp yéen sopp yéen rek ndegam dana la jëriñ waaye bu nekk juróomeel ba te juróomeel bi mooy ki nga xam ne nekkul kenn si ñoom faalewu leen bu leen déglu bu ñuy wax du ko fekkee du ko tax a yàq ar bu ko yàq ay soxlaam dara du nit ñi dañoo mën a jëriñante suñu borom moo def ñenn ñi ñuy xéewali ñenn ñi def ñenn ñi ñuy texe ñenn ñi def ñenn ñi ñuy musiba ñenn ñi def ñenn ñi ñuy sabab texe di ñeneen ñi boo jàngee alquran da nga jàng ci suuratu sala it xuloo bi nit ñi xuloo ki nga xam ne moo la réeraloon lii ma dal yaa ma ko yóbbee yaxillaahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqiina Alxuraan ko wax te doomu aadama bi daanaka lim am li ci ëpp li ko dal li ci ëpp ci nit ñi la ko jógee lim xam gannaaw yàlla doomu aadama ak ko xamal lim am ci doomu aadama la ko jëlee yàlla du war benn wér bi mu jóge ko rek wàcc nit ñi day mbokkam ah Fatou Ndiaye dañu leen wax jeex na kat.
mën nañu continuer ci laaj yi. ah bu ñu def kon. waaw wax wax leen salaamaaleykum mbokk yi. waaw. waaw sëñ Sam. dañ laa namoon ba nga xam ne ñu sës ci yow sax ñu ci bari mën nañ laa may sa temps waaye ñu ngi ñaan Serigne Touba yàggal la fi. ñu am laaj bu gàtt bu ñu bëgg a joxe ndax da nga daan wax ne imaam saafi keroog ba mu nelawee te ahmadu ibn Hanbal ñëw fa dafa wax ne rahimahullahu saafiya kaana ka samsi li dunya wa kal afiyati li naasi imaam saafi mi ngi meloon na afiya mel na jant tim nit ñi ngir leeral gu mu leeral mbindeef ñun taalibe yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dong lañu yaakaar day waxtu woo toogee ci jotaay ba jóge fa am nañu wette ba keroog ñu lay gisaat ngir loolu wóor nañu Sëriñ Tuubaa moo ko def ah nu bëgg a laaj nag ndax borom xam-xam yu bari am na ci ñoo xam ne dañuy wax tasawuf sunni ak tasawuf xayru sunni ak salafi ñuy laaj loolu bu fekkee am na nu mu demee ak masale ku jël ak xoqamam yan tasawuf la génnee ak ban la Sëriñ Tuubaa tegtale bi gën ci nun
ak tasawufu salafi wa tasawufu sunni wa tasawufu falsafi nee naa leen mutaaxiroona yi nga xam ne géej wuñ ci xam-xamu tasawuf ñoo ko tuddee noonu waaye ba tey dañoo indi ci lu wér ñetti catégorie mu tasawuf tasawuf moom benn la ponk yi maanaam piliers yi sëñ Tuba indi na ko ci masaaliku jinaan dina am na tasawuf fi fardu ayni la dal Xasaali yi bidduuni may ni ne arkaanuhu naarif minha sab'a sumtan wa juu'an wa ijtinaabal bid'a wa tawbatan wa saharan wa uzla summa istiqaamatan fa ni'mat usla rek wa zaada cheikhuna li daal islam na taxul ilaahi zahir mu baatina xam ngeen ne dañu ne sayidna Junayd bi ñu ko laajee inna lillah aarif nu muy mel mu ne lawnul maa i lawnu inaa ihi tajriba yi maanaam nit ñi ci seen i am sije seen i misaaj seen i yëgin seen i nekkin seen i doxalin moo tax seen i doxin wuute waaye ponk yi yenn la mooy li ma waxoon suñ waxaat na ko ci xoqa wax na ko ci masalik indi na pilier yi ci xoqa maanaam arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun biha yu axs bunyan indi na tariqa mu asharatan jaat lawasimuha indi lawasim yi indi sa arkaan yi loolu moom ahlu tasawuf ñëpp a ci bokk suñ tuddee sunni suñ tuddee salafi suñ tuddee falsafi lan moo leen ràññale ba ñu ne ñii sunni ñii salafi ñii falsafi loolu li ma waxoon li si naa juré din lawnul maa i lawnu inaa ihi ndab li boo ci sottee ndox ndox mi day jël couleuru ndab li maanaam li tubaab di wax l'objet se colore selon le contemplateur nit ki ci boppam bu àggee ci yàlla keneen àgg ci yàlla keneen àgg ci yàlla du tax ñu bokk yëg leen liñ yëg du bokk ni ñu koy yëge kii ceebu jëne ko dàqal ñaari cin kii yooyu yëpp cere yàpp ko ko dàqal ma dañ ne imaamu ahmad ibnu hambal moo yor drapeau ba mooy ñi gën a littéraliste maanaam ñi al xarfi yoone ñi nga xam ne imaamu ahmad ibnu hambal radiallahu taala anhu dafa nekkoon nit ku xam xadis ba jéggi dayo mënul jéggi dayo waaye ndax am na ñeneen ñëw ganam ndax xadis dañu ne xam-xam ñett la wax naa ko ba tey xam-xam bi ñor te xamul ak xam-xam bi ñor ba xam ak xam xam-xam bi xam te ñoragul xadis dafa ñor te xamul moom donc xam-xam bi nga xam ne dafa ñor ba xam mooy xam-xamu arab ak xam-xamu dafa xam-xamu naxu mooy xam-xam bi ñor ba xam bi ñu demee ba nga xam ne dañ ciy foog la ca jëriñ weesu nañ ko dem ci al ixbaaru billazi wal alif wal laam yoo xam ne amul benn njëriñ du jëriñ ki koy jàng dara mooy xam-xam bi xam ne yaa ngi si nekk di ngërngëri te amatul njëriñ dafa naqari jëriñatul dara xam-xamu arab mooy xam-xam bi ñu ne ñorul te xam léegi nag xam-xam ni ni mu wuutee nit ñi nga xam ne noonu la ñu ak xadis dafa ñor ñor gi mooy xam ngeen ne saxaaba yi bari woon na saxaaba yi boo xam ne am na xadis bu bari xamu ko keneen xam ko keneen xam ko keneen xam ko noonu saxaaba yoo nii waaye xadis amul benn bu génn saxaaba yi buñ boolee saxaaba yëpp xadis yëpp daje na xam nañ xadis yëpp waaye kenn ku ci nekk ak lañ ca am ñi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw saxaaba yi jàng jël ci saxaaba bi jël ci bee jël ci bee jël ci bee benn saxaabu ci bu nekk saxaaba yi bu ci nekk moo lépp lu mu dajale ci xadis keneen def noonu keneen def noonu keneen ñëw nag boole ñoo ñëw boole yooyu yëpp keneen ñëw boole ko ba mujj Ahmadu ibn Hanbal ñu mujj ci ñeent ñi noonu la la la ci ëppee lu mu xam noonu la ci gënoon a amit xef a wattu loolu imaamu Shaafi daf ko daan wax bu ma doon wattu ni ngeen di wattoo kon dana doy waar maanaam imaam Ahmadu dafa xam hadis wattu ba nga xam ne dafa doy waar kooku nag nga xam ne lépp lu mu xam lépp lu muy jëfe daf koy natt ci ni nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxee ba nee ñu sax daawul lekk xaal ndax xamul woon nan la ko yonent bi daan lekkee ndax tra trace yi la daan trace yi la daan topp noonu wala daf ko daan dëgg wala nu mu ko daan lekkee nga xam ne kon topp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba topp ko ci lu dul diine loo xam ne du mbiri diine waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam léppam diine comme ni ma bëggoon waxee bu ñu demee ci at tey fu yëpp épargné na si Abdou Qadir Jilani si Abdou Qadir Jilani ku dul Ibnul Jawzi ñi nga xam ne dafa rakkaa bi dama yàlla baal doon na koy laal ñooñu ñooy ñi nga xam ne salafi yoon dëgg dëgg dëgg lañu dañuy tànk ci xaddis yi ak ci doxalinu yonente bi sallallahu alayhi wasallam
suñu borom nag boobu xam-xam du ko jox lu dul ñu mu gën a fonk jagleel leen ko ci wàllu ñoom yi suñu borom nag boobu xam-xam du ko jox lu dul ñu mu gën a fonk jagleel leen ko ci wàllu yem yi mu xam ci loo xam ne bokkaliwu ko kenn kenn fekk ko ci mu ni naajaani al munzilu bil qur'ani hatta xadawtu mawrida ramani suñu borom moo ma diyee al qur'an ba ma nekk naan naan waaye képp koo xam ne kii ku mar nga mu wane ne suñu borom daf koo moom loo al qur'an daf ko koo sax daf ko koo firil suñu borom moo ko firil al qur'an moo tax mu ne ملكني القرآن تمليكا يدوم وإذا كتبته أو قرأت آية لقاد ربي بركات الآية waxtu ma bindee wala ma jàng benn aaya rek ci alquran suñu borom wammatal ma indil ma barkeb aaya yi yëpp xam nga nit mën na xam xam-xam ba te du am barke ba waaye bala ngay am barke ba am xam-xam ba waxtu wu jàngee aaya ji xam-xam bépp teeñu ko barke ba itam wuyu si ko loolu moo tax bu jàngee rek iblis daw lépp loo xam ne nag xam ngeen ne aarifoon yi ay tolluwaay la ñu am yoo xam ne tolluwaay bi léeg-léeg daañ ci xamee xam-xam yoo xam ne buñ ko bindul buñ fa jógee fàtte ko mën nañ koo fàtte bi nga xam ne aay yooyu ak suñu borom di wax naan allahu nuuru samaawaati wal ardi masalu nuurihi kamishkaatin fiihaa misbaahun lil misbaahu fii zujaajatin lil zujaajatin kaanna kawkabun durrun yuuqadu min shajaratin baazaqatin zaytun laa sharqiyyun wa laa gharbiyyin yakaadu zaytuhaa yudhi'u lampata an-naar laaj nañ ko Muhyiddin Ibn Arabi buñ ko firee ba noppi ne lii moo teew ci maanaay aay ci man tey jii xëy na boo ma ko laajoon beneen waxtu ci feneen danaa ci wax leneen lu ëpp lii ñu laaj ko Limaamul Xasaali te yëgoowuñu buñ ko firee ba noppi ne lii mooy li ma jàppandi ci ma wax ko ndax bu ma koy laaj fekk na sama xel ak sama xol séddalikoo ci ay itte yu bari ma am yeneen xalaat yu bari xëy na ba ma ko laajoon ci beneen jamono ma wax la ci leneen lu bokkul ak lii mën nga ko laajit keneen ci yeneen jamono ci beneen béréb mu xam mu wax la ci lu bokkul ak yii nga xam ni kon xam-xam yi dafa bari te kenn peegu ko dafa bari bari goo xam ne ki ci ëppale mooy ni ko suñu borom tabaraka wa taala waxoon yoon ci yàlla Moussa rek ki nga xam ne fu mu toll day wut a xam ki nga xam ne fu mu toll day wut a xam di ko yokk ak ki nga xam ne daf cee boole du fàtte sëñ ci waaye dana musul a xam dara fàtte ko booleeg nit ñi xëpp gi ñu daan xëpp ci kawam itte yi ñu ko daan wax jaaxle gi ñu ko daan indil nit ñu yàqu ñi mu daan defar ak loo xam ne kenn mënu koo lim te lenn mënu ko cee soxlaal ba wëlis leneen taxul mu mas a fàtte li mu jàngoon lépp ba mokkal ko mu di téere bu mokkaloon na mu ko mënoon a tare ca ba mu koy soog a mokkal la ko mën a tare ci waxtu wu nekk ak ci fànn bu mu doon ndax dafa mas a boole xel mu ñaw mu doy waar mu néew ku ko am boole ko itte ju kawe boole koog li ñuy wax mémoire xaafisa wala zakira boo xam ne du xam dara fàtte ko lan bokkoon na ci li taxoon mu moom nosu kalamu arab loxo arabiya ak maqdura boo xam ne ci jëfan jëfan jëfandikoo ko kéemaan la ci yoon ak leeral maanaam xóot moo xam ne neexu la leeral loolu mayoon na ko muy taalif ci jàppandi goo xam ne daf koy yomb mu gaaw ci ba nga xam ne daf ci day bind loo xam ne kenn mënu la xam ne mu bare ak na mu rafete li nga xam ne moom mooy alfannu mooy aar xam nga ni mooy defar dara lu rafet lu yéeme ci sa xel génne ko ci sa xalaat ba mu yéeme ñu di ko seetantal ay kéemaan nekk ci ci xereñ ak mën ci kalamu arabe nga mën di xam li tax mu ne nasa ali noora lisaani wala arab am na koo xam ne mooy kitaab moo nekk jaawar waaye wala arab mais suñu borom nocc na leeru lamiñ ak xam ak xam langu arab jox ko ko mu wane ne am ne bi mu nekkee ci géej gi bind yoo xam ne bind la ca loo xam ne képp ko arab nampalul mënuloo ko wala ñi arab nampal sax mënuñu ko jàngal mi mi alqalbu min ne fii dal yow mi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima waxuma la kéemaan yi ci nekk mu naan qad zaala raybu fuaadi wa maxaadarani fabaidi qad naam maxalam wax ma maanaa yi waaye nga dem ba ci ci biir tuuti rek wax aslamtu kulli su wax aslamtu kulli rek lim cay teg suñu borom lay doon te ci waxinu boppam lay doon ma allazi ànd ak ki nga xam ne bu mu ciy teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la cay jublu te waxin wi neneen la koy tuddee dal di julli ci moom julli bi weneen julli ni sallallahu alayhi allazi dal di indi leneen lu bokkul lu waxul woon dal di indi wal aali sax bi teg ca leneen weneen waxin wal mustamsikina bi wal qaasina sunnatahu wal nangam te benn bu ci bokk bi moom aska salaat jëm ciy tegit noonu ba mu ba génn ci yooyu nga jàng ko xam luy way xam luy wasnu xam luy alfannu fi taalif wala fi shi'ri nga xam ne nit ku yàlla joxoon kalaamu arab dafa lekk arab ko xam xamin koo xam ne jekk ko jekk ko koo xam ne mëne si ko misaal bari li ñuy wax la musique du verre wayam boo ko dee woy wala nga di ko wax dund roog woyu keneen ci ki nga xam ne dafa xam aar dëgg ci luxa arab dégg ni ni mu neexe nga xam ne bu ñu la leen misaal ne waxoon nañ ne alquran dafa wàcc ci xeet woo xam ne xamuñu mbind wax la ñu xam balaaxa ci wax nga xam ne alquran dafa wàcc ngir wax du dañ ko bind ngir téye ko ngir dana bañ cee rëcc dana bañ cee sotti ko waaye ko ci ngir wàcc nga xam ne bu ñu ko daan jàng ki xam arab dëgg te xamul dara sax ci lislaam wala ci diine dootu mën a dem ba tax ñu ne ak njabar la dañu daan tere ku déglu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne ñi daan tere ku déglu alquran bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng guddi duñ mën a téye seen bopp dañuy dikk ci gannaaw néeg bi muy jàngee ñoom seen bopp kenn ku nekk cib koñ duñ gisante duñ yëgoo di ko déglu duñ mën a dem ba fajar bu ñuy dem gisante ci yoon wi daal di yedd seen bopp ne ñun ñuy tere ku ko déglu buñ xamee ne dañuy sàcc di ko déglu dootuñu ko mën a tere kenn nga xam ne musique boobu nekk ci alquran ci neexaay bi jéggi dayo bi nga xam ne arab yi daf leen a jommal ñu ne du way du nasar du nasaru maanaam du prose du poésie lan la muy waxin woo xam ne arab yi xamuñu lu mu doon indi balaaxa boo xam ne kenn mënu koo xam nga xam ne jommal na ñi daan way moo xam ne soaraaw yi sax ñi ci tuub bu ñu duggee ci lislaam seen way dootu àgg fam àggoon ndax dañuy am complexe ndax alquran ñooñu nga xam ne ay arab la ñu woon ñu dégg làmmiñu arab nga xam ne dañoo xam way xam nasr alquran daf leen a jommaloon jommal goo xam ne mënuñu ko woon dendalee dara waxuma nag li ci nekk ay xam-xam yoo xam ne balay feeñ daanaka ci saa yu rek science dana ci découvrir bi ci découvrir waaye science mën la jot alxuraan ndax ci ngeen ne commentaire yi ñu defoon sax sukkandiku ko ci science yépp luy dépassé la amatul njëriñ. Tantawi Jawhari def na tafsir boo xam ne daf cee sukkandiku ci secret yu bari yoo xam ne firee ko science léegi kenn liilatu ko dépassé science dépassé la foofu ba nit ñi xam ne ñu ëpp loolu waaye ba léegi aaya yam doon firee noonu moom boo ko jàngee gis ci lu bokkul ak la mu doon wax lu ko jéggi ba indi leneen ak leneen ak leneen ba lu ñëwagul. bu ñu dee jàng xasaay di sëñ Tuubaa yi bu ñu amee xam-xam dëgg dëgg te am bokk xam ku di ci tasawuf dañ ci génne yoo xam ne xam-xam yu xóot lay doon yoo xam ne bokkul ak fànn bi ma doon waxtaane yu jéggi dayoo lay doon waxoon naa léegi nii mi ak ni aaram maanaam fànnam ni mu feeñe foofu nga xam ne kéemaanu yàlla nga ciy gis nga jàng xasidatu baax baxaar gis na baax baxaar sëñ Tuba am na ci richesse u arab loo xam ne bu bëggoon a bind rek ci làmmiñu arab lu kenn xamul kenn du ko xam te dana rafet na mu war a rafete yoonoo na mu war a yoonoo waaye ni mu moomee arabiya bi ni mu ko jekkoo moom la keneen mënul nga jàng mabda'u nahji qadaa il xaaji nga gis xaaf yooyu nga xam ne bayt bi satal wu njëkk wi ak wu mujj wi lépp ñoo ciy dëppoo xam ne lu jafe la ci kalaamu arab te bu ko neexoon ba nax ju jeex lépp noonu la koy def waaye kon day mel ne day niru fo te moom ku sore ko la xam ngeen ne bi li ma yàlla baal bi muy ndaw te xaw bi ma jaxase kala ci xissa bi ngeen xam ci jaam ak alal yeeg fas yi ñu jële woon Samba Sadio xam ngeen ne xissa ba demee ba mu jeex te alqaadi àtte ko àtte te sëñ bi dindi ko xam ngeen ne gannaaw gi te moom bokk na si ñi daan yëral sëñ bi ak di ko seetal xasaayid yi gannaaw góor boobu woon ci ndar allah ji lu baamee jang de waaye bi tuddati bi nga xamee ne benn bis sëñ bi romb na ko mu téye mbubbam mu ne ko xam nga ne moom ku ñàkkoon mbuuseer la te bëggul woon benn minute wala genn noo raw ko boo xam ne def ko ci yàlla mu xëcc mbubb mi ne ko waaye bàyyi na du ma yàggal alxaas di jàpp ba ma jooju ak bu ma ne li man xamat baada cheybin abratun wa bi ma araataha kilmata soda ba ma wa bu ma wa id kallamat ni bi taynin kilmatayni bila hasbin wa masin bada li annaha badama ما لي أراني إن لامست غانية عطر الشباب تقبل أو يقول يبمى ولا أنا إن لامست خودا يدي لعبا فأصبت ثم نادت يا أبي سرمة وكل ناهد للثديين تلحظني بأين سحف فتعلي صوتها قومة xam nga nag dem na ba bind ci lu mat fukki bayit ak juróom benn mujj mu dem ci di way yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gaarwaale sëñ bi ba ma ak bu ma yàggal jooju mu wax sëñ bi booba ndaw la loolu na ma yàlla baal mu daan ne li man xamal daan bëgg yaa abratan sabbaha qawli ba ma wabuma hal lan kasafti bi qawli illa li meruma تكليمنا بهما لم يكن يمنعنا بعيده من وصال لا تقل بنما juróom benn bayit la ko ca tontu te gannaaw bu mu ci jógee daana wax naan ndaxam bàkkaar bu gën a rëy tontu boobu ma doon tontonte xaas yi xaw ma ko ci minute ya mu def ci juróom benn bayit yooyu rek te jëmale ko ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam jëmale ko ci yàlla lu dul jëmale ko ci rafetal diggante boo xam ne digganteem ak ku ko mën a xamal aw xaraf la waaye nga gis ne ni mu def xër bi nga xam ne xër na ko ci jamono temps bi ko yàlla jox maanaam dund gi muy war a dund suñu borom sàkkal ko ab tàmbali akuk yemu bugg ci am benn diggante bu gën a néew boo xam ne mën na koo gis ne ak ndànd fooy fooy la boo xam ne duñ ko ca fay bugg ko bi nga xamee ne xasida bax baxaa boobu boo ko liiree richesse bi may wax na ci xasaa ilhaaji noonu boo si jógee nga dem ci xasida goo xam ne daf koo wayaat sax moo di qad aaqani an mazaari maskan al minani madinata nuuri daar al fardi wa sunani dawaamu jël bi firaasi musxalan abadan wa an qudima nahaarin abla bi badani am ngir moom la wayaat ak taaba qalbiya lama allahu sallamani asidi boobu mooy boo ko jàngee da nga xam ne dëgg dëgg suñu borom jox na ko daal maq dura boo xam ne ci kalaam arab ñëw na bi mu waxee ne te surtout mu jilal aba nawaasi mu ne moom suñu borom jàngal na ko arab ba mu gàcceel abu nuwaas xam ngeen abu nuwaas képp ko xam al adabul arabi xam nga ne abu nuwaas ku jéggi woon dayalo abu nuwaas daana fo ci kalaamul arab di indi way yu jéggi day yu yéeme alxamriyaat ak tarbiyaat lu nekk rek def na ca ay diiwaan sëñ Tuba gàcceel na ko ci arab ak way loolu doy waar la dëgg dëgg doy na waar taalif yi mu taalif bi mu demagul ci géej gi li mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu bind ngir jàngale lislaam ci fànn ku nekk ba ci naxwu li mu bind ci géej gi li mu ci sóob ci géej gi xam ne digganteem ak boroomam rek la nga xam ne kenn xamul ni mu toll li nga xam ne bi mu ñëwee ba noppi la gaslu suul ko ak li mu feeñal ne nañ ko woon bindee fii géej la goo xam ne maanaam océan la goo xam ne amul tàq amul fu mu yemee kéemaanu yàlla la baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li rabbil alamina aaya képp ko amul wilaaya xam nga ne man kéemaanu yàlla laa bu mu wàccee mu dem ba gis ne wet bu ne war na faa toll fu doomu aadama di toll war na faa toll jàngal ko mu bind lu doy ci jàng ngir nekk alim ci fànn gu nekk mu gis ne am na geneen fànn jàngale bu ko dese yoo xam ne moo gën a farat ci moom ci fii mu toll la muy dugg nga xam ne bu fekkee nag yaa ngi topp sëñ Tuubaa ba dugg ci tasawuf da ngay gis ne kenn attanu ko mooy imaamul aarifina mooy yilimaani aarifoona billaahi yi waaye dañu war a seet ne tasawuf moom géej la boo xam ne day labale day labal lépp ci dugg mbooloo mu bari ci ñuy seet ay secret ak di wut yàlla lab nañ ci ñi ci ñenn ñi alaku ci ñenn ñi seen dënk nanguwul sax tasawuf far mënul dugg seen bopp mënul dugg seen xol tasawuf mooy fànn gi nga xam ne bokkul ak sharia maanaam du àtte ndax sharia luwaa la boo xam ne ñëpp a ci yem ku nekk la digal tere la tasawuf moom mooy gëstu diggante jaam bi ak boroomam sharia beneen nit xaju fa diggante jaam bi ak boroomam rek dafa àtte li mu àtte na nga fat ndax mu laaj mu sottikuwul ci kenn ci ñetti meloom yi jàpp niñ ko diglee farata yeeg sunna yi dem ci bërëb bu laab sol lu laab sa yaram laab nga ànd ak yéene kàbbar matal rukkoo yeeg sujjóot yi de si daal ak sumaane ba lépp jeex sharia foofu la ci yem bu fekkee ne ba nga kàbbaree ba bi ngay sëlmal yaa ngi xalaat adduna yaa ngi xalaat ay problème yaa ngi xalaat xaalis sharia yow bu la ca wax dara ngi tasawuf nag moo lay jàngal melo li ngay melo foofu ci biir waaye yemu ca dafa dem ba xóot ba àgg foo xam ne mooy li ma wax ne géej la koo xam ne sekkati sekkare yu bari lap nañ ci biir nit ñi bu ñu demee ba ci ci fi ñuy waxee ci tasawuf alfanaa wal baqaa dafa la boroom xam-xam yu bari gëlëme ñu tarxiis daanu ci li ñu tuddee al xulul ak ittihaad tax nit yàlla ñu bari ñu teg leen yéefar ñenn ñi ñu rey leen ni ibnu arab yi ba muy xaleel waxoon awero ibnu rushd bi ne ko diggante waaw ak déedéet ca la kaangi bopp yi wadde
ndax seen ko misaal def nañ ko sax ci introduction Masaalikul Jinaan bi ko ñu bari xanaa war nañ ko di sax loolu ma di ci dellu xam ngeen ne xulul ak ittihaad l'islam daf koo dàq ku ko fas dàq nañ la ci l'islam al xulul mooy lan moo di wàcc incarnation nit ki yàlla dafa wàcc ci moom ba nekk ci biiram dugg ci biiram ba nekk ci moom mënut la teqali koog moom waaye boo xamee ne yàlla fajul ci dara amul bërëb ndax yàlla sàkk bërëb te ba mu sàkkagul bërëb kon fu mu nekkoon bu aajo woo dem ci nekk ci bërëb kon ba mu sàkkagul bërëb fu mu nekkoon ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom istawa alal arsi mu ngi toog ci kaw araf waaye yemoo na ci araf waaye yemoo gi ba mu bindagul aras na mu nekkee woon bi mu bindee aras ba noppi noonu la nekk nga xam ne man yéen moom kenn waru koo xam kenn jéem waru koo jéem a xam imam Malik bi ñu ko laajee al istiwaa mooy lan mu ne al istiwaa maalumun wal kayfiyatu majhulatun wal iman bihi waajibun wa sualu anhu bid'atun ndax nit ki bu ne sax yàllaa ngi nekk fu ne fu ne yàllaa nga fa wala fépp yàllaa nga fa sàkkal na yàlla bërëb dafa war ne fépp a ne fi yàlla waaye yàlla nekkul fépp fépp ne fi yàlla kon ñooñu alxulul moom bari na ñu ko ji te xam nañ ne yàlla xajul fenn nekkul fenn waaye nag danaa misaal li tax li tax ñu waxee waxin loo xam ne dañ koy jiñ alxulul ne ko al ittihad al ittihad mooy bennoo lii jaxasoo naaj lii ba mën a téye leen teqale mën a téye leen teqale lenn la doone nangam la doone lii la doone ma sàmba la doone ma demba la ma sàmba ak ma demba ñoo jaxasoo ba amatuñu teqali kenn mënuñu ne lii ma sàmba kenn mënuñu ne lii ma demba kooku mooy ittihaad muy benn déenatu ñaar xam ngeen ne aarifoon yi li wax naan al aarif duuna maa yaqulu wal al aarif fawqa maa yaqulu wal aarif duuna maa yaqulu borom xam-xam fa mu waxee àggu ko ndax day nekk lu waxi jàmbur waxi yàlla lay nekk ak waxi yonent aarif nag fi mu àgg mënu la wax ba ñu xam fi mu àgg ndax lam ne mënu faa àgg baat yi muy waxee lang bi mu xam mënu faa àgg mu gis ne léeg-léeg sax ñoom dañuy jàng waxi shaa'iru shu'ara yi wala udaba yi ba gis ci loo xam ne day mel ne dafa tekkale seen mbir ñu defe ko misaal ni ki tey bi nga xamee ne benn aarif dafa yëg ni mu yëgee yàlla ci boppam ba àgg foofu mu daal ne gis benn shaayir bu ne ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruuxaani xalal naa badana man maay ki ma sopp ki ma sopp mooy man nun ñaari ruu lañu yoo xam ne dana dugg ci benn yaram nga xam ne aarif bi bu muy def istishhad ci wayu shaayir boobu nga xam ne xaalam xaalu boppam lay misaal dafa mel ne dafa indi xulul ak ittihad kii ne رق الزجاج وراقت الخمر وتشابه فتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر سيرنا باتاي وخنا باتاي ابو نواس ما وخن لولو عارف بي ديك با جيس نه لولو ليكو نا ميرم مو واخه كو نونو واي عارف بي دغ دغ ليغا خامني موم لا ييك ci xolam waaw incha allah gardel ma tuuti ma ñëw ci aarif bi li muy yëgee yàlla ak li muy yëg ak li mu koy saf ak li muy demee ci moom aarif bi mënu koo wax ci làmmiñ wi mu nàmp amul ay baat yu ko mën a tegtale masalan soo mosoon suukar nit koo xam ne mësul xam suukar nga di ko wax neexaayu suukar na mel ba mu xam ni nga ko xamee yow mi ko moom doo ko mën amul yenn baat ci benn langue boo xam ne dana tekki neexaayu suukar ci gémmiñ wala safaayu kaani ba nga xam ne ba mel ne yow mi ko mos ba mu yëg mos ni mënul am arifoone yi li ñuy yëg noonu la demee moo tax léeg-léeg ñu dem ci indi taabir boo xam ne taabir xaasi la maanaam exprimé nañ ko expression bu mooy boo xam ne jaarul ca ca yoon war na mu waxee duñ ko mën a leeral mukk ba wéral ko ndax maanaam lu muy yëg dama ne moo gën a sew karaw moo gën a ñaw jeesi li ñuy misaale siraat moo gën a yëngu jaan moo gën a tàng safara nañ ko mën a misaale aarif bi li muy yëg
ci suñu borom ak fi mu ci toll mënu koo misaal léeg-léeg mu waxee ko waxin woo xam ne dañ koy jëme ci xulul wala ittihaad benn ñu rey ko wala ñu dàq ko ci lislaam nga xam ne rek daw ko ak tajriba la boo seetee rek li ñu askane ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne suñu borom am na juróom-ñaar fukki junni kiiraay yu leer ak yu lëndëm yu dox suñu digganteeg moom buñ ko wuññi woon képp koo xam ne kii sa bët dal na ca leer leeri xar kanamam dana ko lakk ba noppi te alquran ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi nan la ñu mën a dégge loolu nit ki sori na ma ba maanaam lii sori na ma ba juróom-ñaar fukki junni kiiraay yoo xam ne benn bu ma ci jege woon lakk dox na ci diggante bi te mu gën maa jege sama mbuumu xol nan la ñu mën a dégge ñaar yooyu moo tax xaqaa'iq al xaqaa'iq al ilahiya lu raj la lu naqaree xam la lu naqaree misaal la kenn mënu koo misaal baatu maa yee boobu inna allaha maana wallahu maakum inna allaha maa saabirina maa boobu indi woon na jeqi woon na kënd bu bari ak coow lu bari ci gànnaar diggante wul di fatan ak ibnu hanbal ba ñu bind fii sëñ Tuuba di ko ko laaj moo ko leeraloon wane woon na ne boobu bi nga xamee ne tàmbali naa bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox naa tànkam ba tiim ko parce que boobu ñii dañoo jàpp ci waxi Ghazali ñii jàpp waxi Cheikh Ahmed Tidiane mu ne yonent bi xamal ko ne ko Ghazali ak Tijaan yi ak Sanusi wuute wuñu dañoo wàcce jullit ñi seeni wàccuwaay amatu naas bi sëñ bi xam la ne képp ko xamul jëmm yàlla janam demee mënu loo xam ànd bi ànd ak liggéey mu doon gis ba tey ci ñu doon waxatee ñu mujj ñi nga xam ne dañuy étudier mutasawwifoon yi ak seeni wuuteeg wax ñu séddale li tasawuf def ko ay école ne ñetti ñetti école almadrasatu salafiyya maanaam ak tasawufu salafi xam ne limaam Ahmad ibn Hanbal moo amee drapeau ba Bishir moom ci la Bishir al-Haafi ak Sayyidina Junayd ak Cheikh Abdul Qadir Jilani ak ak tasawufu sunni almadrasatu sunniya ak limaam al-Ghazali ak Chazili yoon yi nga xam ne ñu ngi bokk ci ñu ngi topp Cheikh Abdul Aziz Chazili almadrasatu falsafiyya maanaam ak tasawufu falsafi ak Ibn Sab'in ak Sahrawardi xam nga Sahrawardi ñaar la. Abu Hafs borom awaariful maarif waxuñu ko waaye Sahrawardi maqtul ma ñu rey xam ne xale la woon moom la ñu rey moo Ibnu Qas yi ak Ibnu Arabi ak Abdul Karim al Jili ak al Hallaj yooyu la ñu séddane ñoo nekk ci ak tasawuful falsafi waaye yooyu yëpp ñàkk xam tasawuf moo tax ñu def ko kon tasawuf daal ñi nga xam ne ñooy soppee suñu borom ñi. dox nañu ba wàcc ci jiwaaru suñu borom tabaraka wa taala mu teral leen ci teraanga joo xam ne xel mësu koo xalaat bët mësu caa dal nopp mësu koo dégg sotti leen ci ay may yoo xam ne tax na ñu wejam ñu wedam tax du ngir tedd tedd nga suñu borom ak teraanga ji mu leen jox ñu gëlëm ba réer ci àll bi waaye cheikhu tarbiya du yem ci fanaa u fokk mu nekk ci baqaar cheikhu tarbiya ni ma waxoon tànk day xam nooxi mbindeef mi ni ma waxoon noonu lay xamee ay siddiitam xam ay ayibam xam ay mayam xam yi ko jàppandi mu nekk ku xolam nit ci tooñ kenn ku nekk di kenn ndax moom ci boppam daf naan ak lu mu jege jaamu yàlla daf naan xaw ma jaam bi ak ma xamale ay bi xaw ma xamal na xamal na ma lu ëpp dina ko xamal wala déet xaw ma maa ngi ci gëm fa yàlla ndax li feex li nga xam ne mooy moo tax moo moo tontu leen nit nga xam ne dina sunam nit xaw ma dina nit aji texe lay am mën nga tuub jaamu yàlla ba jege ko dee di dugale yàlla man mii suñu borom mën na maa def leneen kon du ko te képp koo xam ne dañu doon àllaa rek dañu àll ci yow nga mucc war na foog ne yaa ko gën fekkente ne maa ngi koy ñaan dama bëgg a sellal sama bopp te suñu borom bëggul ko sellal sama kan dama ko màññee dama bëgg a wax ni maa ko gën te biir nag loolu ay lay doon ci man ba dama mën a gën ba dama mën a gën fuuf li ma waxoon ni quoi te nga jéggal man li ñu xamul sama def ko ci lu dul noonu te bu ma jàpp mukk li ñuy wax ci man nga xam ne kon aarif moom fu mu mën a àgg du jàpp ni gën na kenn day jàpp ne ñëpp a ko gën ndax day seet nit gën a xamul lu mu doon xamul mën na def loo xam ne nii du jàpp ne aay la ko suñu borom jéppi na ko seet ba mu waral ak texee dem ndax nit li gën a bari ci jàppaloo ci texee dem génn dafa koy waral li gën a bari ci texee nit génn dafa koy waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen suñu borom dina ko bind ci àjjana mu jëf jëf waa safara ba kenn saa dese ko mu jëf jëf waa àjjana ñu boole ko set xam ngeen waxtaan nañ ko ay yoon yoon yoon xanaa عمير بن عمير بس وعمير بن عمير من من سيدنا عمر وتخنا نجد من مبارك ما خمنا بسيان سيدنا هند خمنا وكان بجن في رئيس سيدنا حمزة بفت جيل بدنيا رسمي مرنا بسيان حاله تبمان بقول خمنا ودي من أحد te yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax naan te ñu ci xare bi bëgg bëgg kuy dem safara na xool kii yooyu yëpp aarif day daal di bu xoolee nit bëgg am na mu xeet ci moom loolu lépp day dugg ci xel mu daal di tuubaat daal di wàcce boppam moo tax ni day nekk saalimu sabri ala naasi du am mukk noon ci bindee bi jur bi ñu ko tax ñu di xamul dana tuub balaa dee wala déet moom itam xamul dana murta balay dee wala déet kon du sàkk noonu ñu ñu seetlu nekk na yàlla danañ ko noonu mooy iblis foofu rek lay def noonu ndax suñu borom waxul ne nanu noonu kenn ku dul iblis kon iblis rek lay def noonu waaye du am beneen noonu ci milieu bi day nekk koo xam ne ku tabe lay doon ndax boo ko yemale ci tamit ko ci laaj yow dañu koy garder pour ñu engrais waaw ci li ko suñu bari waaye ku ngeen ko bari ñeen ko ay at ñu doon ci moom dara day ragal sax ne suñu borom daf ko jox tadrijan maanaam ngir nga nekk ab béy wala seytaane ku cay siir ngir mu alal di dugg ci xolam wala xam daal day àgg noo xam ne dara du ko mën a yàq ndax bu ñëwee rek daf koy delloo ci yàlla bu ko defee du nay mukk du nay mukk mukk mukk mukk waxtu woo ko laajee mu jox la ku ko gis bu ñaaw sax dafa lay sopp ndax dafa naan fii mi ngi wàññi sama bàkkaar ndax suñu borom daf koo yebal ñu def lu ko naqare ngir mu roxal sama bàkkaar xam ne kon ku xam yàlla ngoog amul benn ayib mooy bindee fi ak seen ayib du ko gis day am xam-xamu zahir bu mag nit ak tawxiid dina xam ne mooy farata ci mukallaf bu nekk ba defee ci muy yar wax koo xamee ne bind na mandarga ak sabab yi taxee di ci moom lu bu fi wax na wa ida xallatil hidaayatu qalbin nasisat ci شتت في عبادة بل نشرت في وكذا وإذا حلت لك وإذا حلت الهداية قلبا نشرت في عبادة الأعضاء نشرت في عبادة الأعضاء وقوة خمين النفس جدية أو جدية ما لم تكون جدية أو جدية ونقريب خرواجي واجب إذا تصور تجاه ولا بل كل شيء جديد بل كل نقوات بل أم أكثر من سكرين بل تجاه ولا جديد بل تصور تجاه ولا ndax di seytaane amatul ci ci moom wala nga dem ba àgg ci sax lu sëñ bala koy sëñ bi bala koy nekkuwaat ba am ak sëñ la sekkal ba